jekk jékki daal di fixé prix bi ci deux cent cinquante loolee arrangé wu leen loolee baaxul ci ñoom loolee nag Cheikh Cissé mi nga xam ne mooy secrétaire général bi jiite producteurs yi nekk ci diwaanu Kaolack moo ko xam li ci biir yéen gi di réew mi ko di cee daat nay wax ne lu jëm ci wàllu mbay mi état bu bu demee bay fixé ab prix dafa war a woo ñi nga xam ne maanaam ñooy baykat yi jamono ji nag li nga xam ne moom la sàkku maanaam deux cent ñu daal yoo xam ne am na na freññeent yi nga xam ne moom la gis maanaam jege na lool Abdoulaye Wade dem ànd ji ak Macky Sall loolee bu mu leen bett ginnaaw freññeent yi nga xam ne journal bi nee na daan gis a kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu nag am na beneen recours bu yees ci candidature Amadou Lamine Dieng ca diwaanu Kaolack la ñu saisir cour d'appel ndax dañoo njortu ne kii am magistrat la xam ne amul sañ-sañ maanaam nekk maire yéen a kaay gi nee lu jëm ci recours a musiba ak mbelengaane Idrissa Seck daan nay indi tamit ay leeral ci élection locale yi ak lan moo tax mu fas yéene bokk ñaawlu na bu baax baax clan politique yi nga xam ne moo am ca diwaanu Thiès yéen a kaay gi de la xëy di ñu ana lan la Macky di waaj fii ak 2024 yéen a kaay gi de Sud Quotidien ñu xëy fekk fa société civile bi ñoom nag jamono ji ñoo ngi artu ñi nga xam ne ñooy way politique yi ci élection locale yi nga xam ne moom sa ñag ba la jëm te bu moom nag nee na war nañoo bàyyee di fowee ak li nga xam ne maanaam moom safara élection yi nga xam ne la ñu dëgmal élection la yoo xam ne dafa war a ànd akuk dal askan wi ñoom seen bopp maanaam daal di atte kaay gii di 24 heures ñu xëy fekk fa waa yaana mara ñoom nag mer nañu ba mara détaillé ni ki dem janoon nañu ak taskatu xabaar yi wax nañu ci mbiri kilifa ñu xëy fekkaat leen ci yéen a kaay gii di les échos ñoom nag nee nañu daal maanaam ay manifestation yu tëdd ak la ñuy amal ba kera ñuy bàyyi ki nga xam ne mooy kilifa ndax ñoom dañoo njortu ne fi ñu sukkandiko ba jàpp ko loole loolee wul ci yoon yéen a kaay gi di Les Échos xëy dañu xibaar naan ñu am na benn activiste bu tudd Diop Taïf moom dañu ko teg loxo la tax ñu teg ko loxo danoon filmer camp Abdou Diass mooy kero bi ñu teg loxo Barthélémy Dias yéene kaay gi nee na activiste boobi nag danoon filmer ambulance yi nekk ci parc oto bi nekk ci biir camp Abdou Diass enquête bi nag ba ñu koy doora maanaam lu jëm ci wàllum terrorisme enquête bi foofee ko jëmale woon yéene kaay gi di la témoin xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci ne bëggoon nañoo dem ñu wàññi am na lu toll si ñaari junni ak ñetti téeméer ñoo xam ne daan nañ leen di teg loxo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ca diiwaanu Mbuur service yu commerce bu Mbuur ñoom nag daan teg loxo lu toll ci fukk ak ñett ci ay tonu ceeb yoo xamante ni baaxul ak lu toll nag si juróom benn junni yu fegg téeméer ak fanweer ak ñett ci ay butelu alcool yéenekaay gi di Le Quotidien ak Les Échos ak L'Observateur ñëw ci élection Miss Sénégal 2020 ak nag njombe yi nga xam ne moo ci am journal bi nee na dafa am kenn koo xam ne ca miss yooyu la bokkoon dañu ko violé maanaam nag jamono ji sax jugee na sa am doom journal bi nee na ndek lu jëm ci wàllum élection Miss Dal viol ak lu jëm ci wàllum moo ca am la sa làqu bëri na yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Miss Sénégal 2022 dañu koo violé mu mujjee sa nag jële ca li nga xam ne mooy ab ëmb dafa tuumaal comité d'organisation bi journal bi nee na ëmb na ba am doom doom ja am na lu toll si juróom benn ci ay weer yéen a kaay gi nee na nag na benn pétition boo xam ne gars yi commencé nañ koo signé yéen a kaay gi di libération na mbir mi nag doy xeet doy waar xam ne procureur moo